dundal na xam-xam yaatal diine teg ko ca kaw toqatuur ku muk luwaa bu yàlla tëral jooy la man jooy la yow mi ma miin Cheikh Abdoulaat Baara danga yaatal ma soo xatal asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci ndigalu Cheikh Mahamadul Muntaxa xalif général kulu murit ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tam ànd ak wér sëriñ Moustapha Mbacke di jëwriñ Cheikh Cheikh jëwriñ Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gépp moom it suñu borom yàggal ko fi loolu tam ànd ak wér ci kilifteefu sëriñ Modou Bara ñoo leen woo ak di leen yëgal bis bi nga xamante dañ koy amal di ko baaxoo di amal di ci fàttaliku seen waajur wu selloo muy Cheikh Abdou Lahad mu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke moom sëriñ Touba Xaadim Rasul ñu baax ko ne bis bi ñu umee bi mu delsee ren ji nag mu dëpp ak dimanche le 10 avril ci weeru tubaab ñu ci woo ñëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn njabootu Serigne Touba Xaadimu Rasuul gépp ngir woote bis bu am solo boobu dinañ yëkkati kàddu gi nag jox ko Serigne Dame mu mi yëkkati kàddoom ci mboolem taalibe yi ak mboolem fédération yi ak daayira yi su noppee ñu jox Serigne Abdoul Ahad Diop mu yëkkati kàddoom su noppee ñu jox Serigne Maam Serigne Mbacke mu noppee ñu jox ñu déglu Serigne Cheikh Baralahad Mbacke moom mu yëkkati kàddoom yéen mbokki julli yéen mbokki taalibe yi ñu ngi delluwaat di woote rek ci woote màggalu si Abdou Lahad Baara gi ndax amuñu lu dul moom waaye nag nuy woo sunu mboolem ñi nga xam ne mooy mbokki taalibe bi nga xam ne bokkal kër gi ñu ngi ci jiital nag fédération bi nga xam ni moo nekk Touba di ci teg fédération bi nga xam ni moo nekk Njogomaay ak bi nga xam ni moom moo nekk euh, Wajalde ak bi nga xam ne moo nekk Tivaouane Peulh ak waa Jiwaalo ak waa mbuur ak waa Caaroy ak waa piir ñu ngi woo ñëpp ak waa Bulal ñu ngi woo ñëpp ci màggal gi ak waa Njaareem ak waa Fisal ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci màggalu Cheikh Abdou Lahad gi di wax nag bis bii bis la boo xam ne kenn mooy bis boo xam ne amuñu lu du moom amuñu lenn nit lu ëpp ci moom ci ñun moom kon nañ ci am taxawaay te góor góor lu ci baax a baax te ko yëgal nag fédération bu mag bi nga xam ni moo lëkkale mboolem ñëwatu sëñ sëñ Baara gépp mu nekk guy mbind ngeen ko yëgal di wax nag ñu ngi teertu ñëpp di xaar ñëpp di séentu ñëpp di wax ne yàlla indi yàlla na yàlla indi ñëpp ci jàmm ak salaam ñu ngi koy def nag ci kilifteefug sëriñ Cheikh Bara Lahad mi nga xam ni mooy jëriñu sëñ Modou baara moom sëñ Abdou Lahad mi nga xam ne mooy xalifa bi. yéen mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen uh, yëgal bis boo xamee ni moom la ñu dëgmal muy sunu bisu jàmbaar ja di sëriñ Abdoul Ahad Bara. sëñ Abdou Ahad Baara nag ku ne xam na maanaam taxawaayam ci kër sëñ Baara maanaam yërmandeem njàmbaaram ci liggéey ak ci lislaam ak mën a dimbali doomu aadama yi ba tax na bisu yërmande bii muy weeru koor juróom-ñetti fan ci weeru koor yi moom lañ koy màggalal fii ci guy mbind ñi ngi ci woo képp koo xamee ni mooy turandoo sëñ Abdou Lahad Baara ñi ngi leen koy fàttali bu baax a baax yéen mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen koy yëgal bu baax wa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw ba ñu sante yàlla suñu borom tabaaraka wa taala te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Cheikhul sant Serigne Baara yal na yàlla taas ci barkeem ak Cheikh Mouhamadou Cheikh Abdoul Ahad Baara mi nga xam ne tey moo waral bis bi ñu teew fii ci ëttam bi ci turu Cheikh Mouhamadou. Baara Mbacke ñu gën koo xam ci Serigne Gaynde jaar ci jëwrinam ji nga xam ne mooy Serigne Cheikh Baara ànd ak mbooleem njabootuk sëriñ Abdou Lahad Baara gépp sëñ Xaadim mi ngi ne toog ànd ak mbooleem njabootuk Serigne Abdou gépp ànd ak taalibe yi li waral euh, toogaay boobu ak jataay boobu nag du lenn lu dul la nga xam ne nit moom la boole ci Serigne Touba boole la ci Serigne Baara amoo lu gën a rëy loolu muy Serigne Abdou Lahad Baara te kenn ku nekk xam na Serigne Abdou Baara ñi fi teew ñëpp. moo leen boole ci Serigne Touba boole leen ci Serigne baara kon amuñu lu dul moom amuñu lu ko gën a kawe bisam bii nag day lu sore ci nun lool ndax deseeluñ ko lu dul lii fu mu nu war a fu mu war a jaarale njaboot gi jaarale na ko fa te kenn ku nekk xam na diggante Serigne Abdou Lahad Bara ak doomu aadama yi diggante Serigne Abdou Lahad Bara ak waa kër Serigne Bara yi nga xam ne ñoom la ko yàlla loon waaye diggante sëriñ Abdou Lahad Bara ak njabootu xaadimal Moustapha gii nga xam ne ñoom la nekk noonu ci dëkk bi kenn kooku ci tudd mu rafetlu diggante ba ñu seqoon ñoom ñaar ba ci ndaw ji nga xam ne ñoo nekkoon ndaw yi doon jàng fii ci kër sa njatara gi sax kilifa goo ci dajeel lam lay njëkk a njëkk njëkk a wax mooy moom day matoon nanu bàyyi waaye danoo defoon ne boppam kon nag ñu ngi leen di woo ci bisam bii nga xam ne mooy juróom-ñett fanu koor gi ñu ko ci màggalal ci tuubaa ci Touba guy mbind gi ci këram gi ci Touba guy mbind lañ koy defee ànd kook njaboot gi ànd kook taalibe yi ñu ngi woote mi nag di jaarale woote bi ci suñu kilifa ñun ñëpp muy Cheikh Mouhamadou Moustapha mi xalifa Serigne Bara Mbacké ànd kook waa kër Serigne Bara Mbacké yëpp ci sëñ Modou Baara ba ci sëñ Xaadim Awa ba bàyyiwuñ genn kër ñu ngi ciy woo ñëpp euh, bis bi nag li ñu ciy jiital mooy alxuraan ku nekk xamoon na Serigne Abdou Lahad ak alxuraan ku nekk xamoon na Serigne Abdou Lahad ak xasida yi demoon nañ ba ci mag ñu ci bëri koo ci jaxasool wala koo ci koo ci koo ci jaxasool rek lam lay njëkk wax mooy xasida gu ma mas a jaaxal day damay ñëw Serigne Abdou Lahad laaj ko mu génnee gaalam googu jox ma kon ko ku nekk xam na ne ni mu neeloon digganteem ak xasida yi ñu ngi ciy woo mbooleem daara yi xasida yi nekk ci guy la di ci jiital yi bi nekk fii ci penc mi mu jàllale ko ci mbooleem mboolem yi nekk ci dëkk bi di ci woo daalee arxulaan yi nga xam ne nekk ci dëkk bi yëpp ñu wàccee ko ay kaamil yéene ko yool bi ak mboolem waa kër Serigne Bara ñoo ngi nuyu mbokk jullit yëpp leen ndokkeel ci weer wu tedd nga xam ne moom la suñu boroom tànn muy weeram eh, di ndokkeel jullit ñi ñëpp di fàttali loo xam ne xam nañ ni kenn fàttewu ko. waaye nag doomu aadama moo baaxoo fàttali muy bisu Cheikh Abdoul Ahad ñu di ko def fii ci ju ci juróom-ñetti fan ci weeru koor gi di dëppoo ak dimanche ji nu jëm eh, ñu di ko def nag ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan yàlla mu yàgg fi te di ko def ci ndigalul sëñ Ahmadul Mokhtar yàlla moom it mu yàgg fi te wér di ko defit nag ci kilifteefu sëñ Moustapha mi nga xam ne moo fi teegal si moo fi toogal ma du Lamine waaye di ko def ci njiitul sëriñ Modou Baara mi nga xam ne moo fi toogal euh, Cheikh Abdoul Ahad Baara mboolem njabootu sëriñ Abdoul Ahad Baara gi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo àndandoo fas yéene taxawal bis bi bis bi nag mën naa wax ne du benn bis ndax li tax du benn bis mooy bis bii fi sëriñ Abdoul Ahad Baara jóge woon mooy ñett fan ci weeru koor waaye sëñ Sidou Mokhtar dafa wax na ñetti fan diis na te nit ñi ci koor la leen di fekk ñu tàmbali ko mu wax sëñ Abdou Aziz ni ko yóbbu ko ci juróom fan yi ngir mu gën a yaatu waaye nag taxut mu génn benn yoon yërmande yërmande débi koor yërmande ji nga xam ne moo ci nekk te Cheikh Abdoul Ahad Bara tànnoon ñibbi ca taxut mu génn ko ba mu tamit nag eh, yàlla dogal sëñ Abdou Aziz Lahat jiitu sëñ Xaadim ma ngi nii ak sëñ Moustapha njaboot gi ñëpp ñu ngi nii toog. yàlla dogal itam sëñ ab sëñ ba mu fi bàyyikoo sëñ Abdou Khadim ma ko wutu woon sëñ Aboo nga ne toog ak njaboot gi ñoom ñëpp ñu boole nag ñetti bis yooyu lépp dugal ko ci bisu kii nga xam ne moo leen meññ mooy seen lépp te te te te te gëm ak wóoloog yaakaar moom lañ ko def eh, ñuy woote nag bis boobu ñu xam ni noonu la tëddee bisu Cheikh Abdoul Ahad Baara la bisu sëriñ Abdou Aziz Lahat la waaye bisu sëriñ Abdou Khadim Lahat la ñaar ñi nga xam ne ñoo ko jëkk a wuutu te yàlla dogal ñu jiitu ji ñu boole lépp loolu dafa lay jox firnde rekk ni kooku lam fi bàyyi woon bu nga ni benn dank la dara jaddul jëm fenn kenn jaddul jëm fenn lépp ñu ngi ko àndandoo ak suñu doom àndandoo ko ak suñu rakk lépp ci njiitu sëriñ Modou Bara mi nga xam ne moom la yàlla dogal mu jiite kër gi tey gi kon nag ñu di ci woo mboolem jullit. bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw njabootu sëriñ Touba li tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadou Mourtada góor ak jigéen ñu ngi leen ci woo ñu ngi woo waa kër Mame Mor Diarra waa kër sëñ Massamba waa kër Cheikh Ibrahima Fall waa kër sëñ Ibrahima Sarr Njaañ waa kër sëñ Ndaam Abdourahmane Lo moom daal ku dégg ku ñu déggutit ku ñu nga xam ne li sëñ Touba defar a bari ba mun noo lim lépp waaye mboolem ku Sëriñ Tuubaa dafa ñoo la ci woo ñoo ngi woo taalibe yi ñoo ngi woo soppe yi ñoo ngi woo xarit yi bis bii nag fii nu toog di ko def képp manes na cee doy na firnde ci ko ci ko xam ndax fii nu toog tey di di jàkka ci kër gi nga xam ne fi la ñuy julee sëriñ bi moo daan def bu timisee mu ñëw fii suunu faj bari na koy dégg ci senegal gii mu yor alal te fii la ko jëlee bari na ku feebaru fii nga wére bari na aajo ju faju fii la fajoo fii nu toog nii rek fi la xewee soonu gëm fi daan soonu nu dem ba suñu borom def defal ko ko muy muy muy néegub boppam bi mu wonee ginnaaw génn àdduna suñu borom defar fi mu daan soonu muy néegub suñu borom kon loolu dong firnde la ci lu ñu bëgg a wax ci moom nit nag du wax ni may kii wala maay kii da ngay wane ñu gis te moom daa fa wane ñu gis kon bisam boobu noonu ñun amuñu bis boo xam ne bu ko gën a rëy ci nun la euh, sëriñ Basiru Abdou Xaadir moom itam ku fonk kër gi la te téye ko ndax lu xew dana ci ñëw def dox ci lim ci war a dox yëpp du bàyyi fenn jëf ci lim ci war a jëf itam kon moom tamit nag di suñu lépp ñoo ngi koy woo ci bis bii ñoo ngi woo mbokk jullit ñoo ngi woo ñoo ngi woo ñiñ bokkal sëñ Baara ñëpp itam mboolem bunt kër sëñ Baara yi ak daayira fédération sëñ Baara bi nga xam ne mooy moo moo mu naawirul bunyaan ñoom ñëpp ñoo ngi leen di woo ci njiitul Mbay sekk ak ak ak asi Abdou Asiloo bàyyiwuñ kenn bis bii daal bisub njariñ la te la la la la sëñ Sidi Muxtaar ne woon la sëñ Saliou ne woon sëñ Sidi Muxtaar nañ toxal bisu mbàkk Kajoor ci bis bi ñu bi bi ñu yewee woon góor yàlla yi ngir ñëpp di ca jaruñu waaye bis bii itam noonu bërëb bii nga xam ne fi la sëriñ bi daan faja aajo yi mu wëlbatiku nekk jàkk ñu ñu ñu di fi jullee tamit tam nekk ci rëdd guy mbind kon ñuy sa ñu ñu yéene nit ñëpp tamit nag ñu am ca ñu am ca loolee moo moo waral ñuy woote bis bi ñoo ngi woo kilifa diine yi yëpp itam mboolem tarixa yi nga xam ne ñoo ngi doon jóg di dem ci ñoom guddeeg bëccëg subaak ngoon wala képp ko nga xam ne ñoo ngi doon jóg du ñëw ci yow subaak ngoon ñoo ngi lay woo ci bis bi ndax kat bis yëpp a kowe waaye bis bii nag moonu bu bu bu melee nen bis bee tax kon nag bis bii bu ñëwee kon ku ko fonk ku ko fonkle na nga xam ne fonkle nga nu lu lun fonk te bëgg ko di bisu alxuraan di bisu xasaayit di bisu sikru la nekk itam ci ci biir fukki fan ya nga xam ne ñu ngi ciy tudd yërmande yërmande yàlla amutub yamu du caagi nag dañ ne fukki fan yi yërmande fii yi jot ci sawara yi yi yi njëggal déedéet yàlla du jeex yemul ci fukki fan njëggalug euh, jot sa bopp ci sawara du jeex amul fukki fan ndax saa bu soobee yàlla mu def ko ndax weer wii weer la woo xam ne képp koo xam ne génn nga ci àdduna rek war ngaa sant yàlla ndax li ngay sant yàlla mooy juróom-ñetti bunti àjjana yëpp juróom-ñetti bunti àjjana yëpp dañ ko ubbi juróom-ñaari bunti sawara yëpp itam dañ koy tëj te itam ci la nit di gore ci sawara gore ci sawara tekkiwul ni da ngay dem sawara ñu soog la faa ñuqatee di di di la fa génn déedéet dangay doon ku waroon a dem sawara jëf ci lii promotion bii nga jëf ci loo nga xam ne tey boo lëggee doo dem sawara kon bis bii nga xam ne sañ Abdou Lahad Bara da koo tànn wuyu ci sunu borom kon kenn ku nekk xam na ne ba ko yàlla tànnee yàgg na ñi baax itam bañ ko tànnee yàgg na. kon ñoo ngi woo ñëpp di ñaan yàlla ñu ñëw fi ñu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ñu màggal ko ci jàmm te yàlla def jàmm ci senegal kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi kon bis baa ngi noonu fii lay amee ci Touba Guy Mbind di bisub sëriñ Abdou Lahad moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké waaye di bisub sëriñ Abdou Aziz ak sëriñ Abdoul Khadim di ñaari doom ñi ko njëkk a wutu ñu ci woo ñëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn di ñaan ci barkeb Serigne Touba Xaadim Rasul yàlla ñu ci yàlla yóbboog jàmm ci weeru tubaab mi ngi dëppoog le 10 ci weeru koor gi mi ngi dëppoog juróom-ñetti fari koor gi maanaam dimanche bii nu jëm di ñaan képp ku fa teew yàlla nga dëppoo ngërëmul Serigne Touba Xaadim Rasul wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yàlla ñu ci yàlla yóbboog jàmm xaala Seex Muhammadu Lamin Baara al-Makki yaa rabbana innal waraa tadarro li awliyaa'ika man li yasa يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجي لنا لطفا وامنا يا يا من تالا لم يكن كفناد